Salam, salam les gars. Je me présente Top Connection. Hein. Ok, nous avons les 5 minutes de Top Connection. On est venu sur notre quatrième émission. Hein. C'est les 5 minutes de Top Connection. On va parler euh, sur la cumule de fonctions. Euh, nous nga les liggéey yu Tu euh, ci le aar Tu loolu les waxtaan bon li may wax mooy comme suppose moom fekkente ne euh, da nekk euh, artiste wala nga nekk showbiz bi euh, wala nga nekk caméraman wala nga nekk réalisateur wala nga nekk beatmaker wala nga nekk ingénieur son bon léegi gis nañ que nga nekk artiste boo nekkee artiste nga jouer sur comme souvent la plupart ñu bëri. dañuy fréquenté studio yi léegi comme noonu noonu noonu ci biir waaye Sénégal moom bon loolu mooy ni de plus en plus mooy ni médiocrité parce que formation dafa am formation dafa am waaw da ngay gis ba si muy tubaab yi di ñeneen ak ñeneen dañuy spécialisé wu si benn domaine comme supposons supposons man ma nekk Kalakana léegi kenn nekk monteur. wala ki nekk beatmaker am wala ki nga xam ni moom mën nañu boole sax comme suppose mu fekkente ni euh, ki nga xam dafa nekk si studio mën na nekk euh, beatmaker en même temps mën na mën yooyu mën nañu moom yooyu yooyu mën nañu ànd mën nañu ànd mais comme suppose da ngay gis kenn day bëgg nekk rappeur bëgg a nekk caméraman bëgg nekk euh, ingénieur son. leneen ak leneen bon au finish est-ce que kii yu bëri yooyu yëpp nga boole est-ce que ko liggéey ni mu waree parce que réellement dañ ko liggéey ni mu ni mu waree comme supposons comme ñu wax naan côté professionnalisme ak yeneen ak yeneen mais bu fekkee dem nga si yeneen kii dëkk yi nga xam développé nañ wala feneen ak feneen da ngay benn de maanaam da ngay toog benn affaire comme supposons mu fekkante noonu am na ñeneen ñi nga xam ne dañoo focaliser ci wàllum photographie Eh, am na ñoo xam ne dañuy def def fi formation mais comme supposons bu fekkente ne comme ñun fii la ñu bëri dañuy am tendance ñu côtoyer des anciens mais am na ñoo xam sax loolu yëpp du si fekk dañuy dem ci internet yi di xool tuto yi maanaam ñoom auto formation lañu def auto formation waaye ñoom dañuy dem ak seen xel comme supposons ñun ñu dem ñu ñu def tuto montage vidéo noonu noonu wala comme supposons da ngay gis ñu bëri. ba mën na gis benn def connection mu ngi évolué si domaine photographie yu ñu xaaral noonu rek côté waaye comme noonu tam si nit yow ni ñu ñëwee di ànd ak yow dañuy yaakaar ne de telle sorte duñ jël le temps nécessaire ñu jël assez de bagage si yow mais da ngay gis dañuy commencé benn un mois wala benn deux mois du yàgg tuuti ñu dem waaw bu ko defee yow doo xam lu bëri ci doo doo xam lu bëri ci liggéey mais normalement bu fekkante ne dans le temps bu fekkee dañuy jàng métier

Euh, kii mën na nekk théâtre kat comprendre comme cumul de fonction boobu du ñu am assez de temps pour jàng euh, maanaam dañuy toog ba moo waaw am na nu muy demee tam benn instant euh, dañuy jiital xaalis wala ku ku dañ ko liggéey boobu fay na alors am na liggéey yu nga xam ne moom dafay laaj dafay laaj temps ak patience waaw dafay laaj temps ak patience. comme noonu yow yaay wane yow yaay wane sa liggéey yow yaay wane sa liggéey dañ dem nit ñi comme supposons yow mu ni man professionnel la comprendre parce que domaine domaine audiovisuel ak yeneen yi dafa yaatu dafa dafa yaatu même ñi gën a professionnel sax boo demee si ñoom ñoom danaa xaw ma daal alors que xam ne boo leen boo ko seetoon ak ñoom da xam ne carrément que nit ñi ñoom du sa morom parce que ils ont pris le loolu gëstu seen métier comprendre lépp loo leen laaj seen métier dana koy dana koy wan alors que suñu génération bi bien que ñu ngi topp nouvelle technologie mais professionnalisme bi dafa xaw a des parce que dañuy yàkkamti du ñu jël temps gëstu lépp lépp si métier yi mais comme ni ñu koy waxee rek maa xam ne maa war a fës wala leneen ak leneen. deux mille cent li nga ngay jàng bu moo bu ko defee leneen lu ñëw rek day day day dooleeku leneen lu ñëw si ko day dooleeku fekk yow nga assis am nga toogaay bu dëgër waaw bon loolu la ñu amoon pour wax ak yéen muy cumul de fonction maanaam nga boole métier yu bëri au finish benn du la si jàddi ok kon li may conseillé jeunes yi du conseillé sa bopp mooy ñu topp benn ñu topp benn métier bu fekkee ne comme wàllu photographie fii si wàllu photographe bu fekkee ne euh, monteur la yaa si wàllu montage parce que da ngay dem ba finalité bi après ñu ngi rivaliser day bëri alors que mën nga nekk si benn métier xam nga nga xam si lu bëri les cinq minutes de Teuf Connection noonu moom man di leen ba beneen yoon te di wax euh, ngeen abonné si sama Connection TV euh, Sénégal di leen jox di tege ba beneen yoon si yeneen rajo